kuréel bi ëmb client épargnant bu post amaloon daje ak taskati xibaar yi tey jii ci suba ñu xam le ni mënunoo jot seen xaalis bi nu denc post ay at ak léegi. li ñu xaar dafa yàgg lii nii depuis deux mille dix neuf bi élection yi jeexee ba léegi si la si ñu si am problème bi mën nañoo fexe ba jot suñu xaalis li ñu bëggoon ak lenn la mooy ñaanuñu yalwaanuñu président la ñuy interpellé directement. waxuñu ko pour mu la problème poste de mais na régler problème mu client yi pour client yi jox seen xaalis ñun loolu la ñu bëgg. loolu nag waral ñoom client yi di jooytu jafe-jafe yi ñuy dund. depuis ma nekk jeune may liggéey dafay denc sama xaalis boo gisee sama ma waxee ma jooy dama ragal ndax sama xaalis noonu lay nar a dem noonu la nar a demee te aw ma ko ci caaxaan dama liggéey cinq heures du matin laa yeewu taxaw ci tali bi te lu neex mën na ma fa fek loolu moo ma métti ba léegi saa yu may wax sama xol day fees. ñu war a waxtaan ak kilifa yi ci fan yii ñu jëm ñoom collectif bi xam na ni daanu teg yeneeni jéego sunu saafarawul seeni jafe-jafe. directeur bi bi mu yëgeen tey jii dañu war a def lii na membre bureau bi ñu dem ñu demee jàmmaarlu ak am na lu ñu wax parce que lii ñuy def nii am ñu lu ko jiitu moom mooy benn marche moo ko jiitu ñu ne moon avant ñu def marche nañu def lii pour ñëpp xam ba pare. léegi nag àllarba bii nee na nañ fa ñëw pour ñu waxtaan parce que am na lu ñuy am na ñuy dig ñu na bu ñu ko defalee marché bi dinañ ko def en premier lieu plainte aussi bi ñu war a déposé dinañ ko déposé plateau télé aussi yi nga xamante ne ñu ngi ñuy invité pour ñu dem fa ñu ñu ngi siy liggéey dinañ dem aussi si plateau yi pour toog wax ak sénégalais yëpp ce qui s'est passé